ma jóg sant yàlla ngeen ji yonnen ba Mustapha ci taawab Sëriñ Tuuba bi tuddee fi Mustapha ma jóg sant yàlla ngeen ji yonnen Mustapha ci taawab Sëriñ Tuuba bi tuddee fi Mustapha ku xam tey dana alhamdulillahi wahdahu halaa kot bi haasal jiili nan sant Mustapha ku doy loolu doy war naa saxoo sant tey kar te kii doy na tur waay am di neexal wi Mustapha turam waa di xayrul ismi ahani muhammadan niroo naag musammahum te way juriya Mustapha ndeyam jaa di xayrul moo fawqa jépp ndey bi aminatin tudduhaa ki lee te baayam ba mooy abdun xadimun li Mustaphan muhammadu abdullahi mooy baayu Mustapha te sam wa doyna ak barke jangal mubarakan bi bakata mbakkey ay makali wóor na mustafa te wa doyna ak barke jangal mubarakan bi bakata mbakkey ay makali na mustafa xam-xam ni di tay batan kilee kooka lii mooy loola nan moy ci mustafa lu waay ci dunya tay lu ban babatilun sëriñ boo fu doyloo tey dëggul tànki Mustapha palaasab sëriñ Tuubaa ku koy tooge fukki at asal lii du nee nag neen na ngeen toppi Mustapha ku naa maa bëggoon feex ban ba teew konte lii ki la xanaa kaani doom baa tax musil am di Mustapha ku mus dolli mooy suukar ku ngañ nit di ngaañ fi nun waman abbahu xat maana hoo jooli Mustapha kajoor ak bawol sin saalum ak fuuta ak jolof sumil nañ la seenum sàpp yaa sayxu Mustapha sëriñ Mustapha taalam di imsa a dootu fay ndeleeruk sëriñ Tuuba jafal leeri Mustapha ndaxam taal bu yàllay taal sëriñ ban ba wut matam la koy fay amul jóg leen taxan ko Mustapha danoo gëlëmun boobee ba tey waaye yewu nan bisab jant fenke way sigil dagu mustafa magak ndaw pëlëg naar ak walaf ñepp a ci yow asal ya di sun ci les sofa mustafa te sun mboola jebal nan la sun biri no ngi ni defar no defar ban sotti cheikh am mustafa fatuba fatuba summa tuba karamatan liman qad ata tuba wa qad zara mustafa jumaa jii di toolab ban ba taw baa di jëwriñam ña ngay tobbi dooñ ya nan wuy ji Mustapha jumaa jii di toolab ban ba taw baa di jëwriñam ña ngay tobbi dooñ ya nan wuy ji Mustapha ku bay añ da ban baa togg jébbal ko Mustapha bileb xërnu seenub añ ma ngaak sayxu Mustapha ni naa leen aji iboo daax yallaahi wuy ji leen bu ñuy woote kuy tànkam lu doo seeru Mustapha ku naa man la géeyal naa sëriñ ban ba wàcc naa dinaw ay jëfam yal naw nitam toppi Mustapha xanaa moom yëgul ibliisu lam jaamu rabbuhoo te naa goo taxoon ak mu alkoofa Mustapha ba buur yàlla ne mboolem malaaka ya usjudoo li aadama iblis bañ ba far noonu Mustapha bañam gaay ba ñab kuy bañ ba tey waa ju bañ digal bu yowmal xiyaamee doo gisee ñenn Mustapha bañam gaay bañ kuy bañ ba tey waaju bañ digal bu yowmal xiyaamee doo gisee ñenn Mustapha na buur yàlla may nun nangu fi amri cheikhina nangooy jël cërub bañ léebu wii wóor na Mustapha jumaa ji Sëriñ Tuuba digal réew mi door a dem nangoom gaa waral waa réew mi nangul na Mustapha asam wom sa seeg tey jii jumaa jee ko tee nelaw na buur àggalew naalam ba nuy julli Mustapha falaangoon na jox antal pare noor ba jëkk a ñëw awaas nay junneem boobeeb tubaab war na Mustapha mu buuraat falaangaat jox boroom ndar mu xëy ku naa layti ngir daawoo desal ay di Mustapha jumaaje e misaalum bayti naalam wo yeggulon sulaymaanu moy daawoodu banbaade mustapha te yallaani yaa daawoodu yaa mat khalifatan te yow laa ko def fil ardi fahkum bi mustapha te boobee ba tey yàllaa ngi def ay khalifatuwam ku buur wóolu xëy jiital la yaa donn mustapha li kulli samaanin waahidin yuqtadaa bihi rijaal yaa ko wax roy leen sëriñ am di Mustapha li lee tax mana waa réew mi nan wuy ji Mustapha ku yaakaar sëriñ Tuuba na dem wuy ji Mustapha jumaa mbóot ma moo doon aljamaahatu rahmatun te ponkam ya am nay mbóot yu jar wuy ji Mustapha sirrub jiim nga mooy jibriilu ponkam ba moo ko yor te miim jaadi meekaa'ilu ñooy jëfle Mustapha alif jaadi asraafiilu bee ponk moo yor xayin jaadi asraafiilu lii wóor na Mustafa alif jaadi asraafiilu bee ponk moo yor xayin jaadi asraafiilu lii wóor na Mustafa Abu Bakrin Siddiqu Usmaanu ak Omar xaliyun ñi lee yor mbooti lislaami Mustafa waroom ngir ya xalaat yoonu lislaama wuutu ñi maqaamaati ñooñee ñooy maqaamaati Mustafa te boo leen xamul mooy maalikun summa shaafihun abu hanafin an bal ñi lay lampi Mustafa ku xam lii du wooteeg nguur du weddi xalifatoom du tànqam lu ab wooteem du weddeeti Mustafa sëriñ Mustafa santal dayob cant fi gën amul kuy weranteetee ka ngaayoo ci Mustafa tëddal nag nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ amoo xaj bu lay xëyrooti lum nañ ci Moustapha walaay yaare yëg may yaay waroom xaas ni Moustapha Muhammadu Abdullahi ani bi Moustapha ñi daa xiiru ak ñay màtte seen gëñ ya foq nañ sabawkat ya seen gémmiñ ya saañ nañ ko Moustapha ña daa bind surnaal ak ña daa bind ay xarab yërëm leen te làmboo raxmatallahi mustapha ña daa jabarang ñay xaatim ak jaaye daa luxus balax nañu seen xam-xam yafar toppi mustapha sëggal yuy te wammat ruwaye tuum nañ ci yow bu wér tebul faale kuy wuy see kafar jekki mustapha su fekkoon dangay laaj carte say kandidaane wiiw ndeyaa wat ña daa wooteeg ña daa waati mustapha ñi ngay woo ni nañ waa waaw nde seex ban ba yaay donoom ku koy sikki sakkaare re seex am di Mustapha ci waaw mbaa ci waaw waaw mbaa ci wóowóow nga tollu tey ku ñëw ree ku jekki jooy nde yaa donn Mustapha ci ku ñëw ree ku nee na woote bi yàlla moo gën bu nit bi def defoo kenn deful yàllaay boroom kun fa Mustafa walaf ne ku am xel nangu dem ci elifa nelaw ku am xel na ànd ak xel ma dem wuy ji Mustafa la Seex Bamba noon waa réew mi yàllaa ma wooteloo ku dib dof na toog xel wa dem fekki Mustafa la Bamba noon waa réew mi yàllaa ma wooteloo ku dib dof na toog xel wa daw fekki Mustafa sering ban ba tuubal nan la ñëw nan bi jaahikum te sallahu dootun del wel nan ci mustafa ganaar ak nenam yaag fiq ak cuuj yekuluhum boroom gàmb baa moom lépp nawtal nu mustafa te maay mujisaatam far di làmmeñ wa koy waxal wa kallama rabbul harshi moosaa bi mustafa lu njiin njaaga bambay njaag te mooy jiim fa mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal ci mustafa sëriñ ay géejum ndeneel waaju ak sidu ku mar bay pundooñ yaa tay ma ngay wal fa mustafa ndoxam maa ngi wër tuubaa ba fayinu rahmatin waxeynu ridaa dem leen dëkkeeg saykhu mustafa ma ngay yeesalaat ba bi tajidi di diinihi yërëm ndaw ña màggal mag ña moo doon mustafa di sëyloo jigéen ñay denculoo góor ña kulluhum di leen san di leen séetal na ngeen sant Mustapha lu waay soxla boo fay dem mu faj loola saaxatan tabeeg topp yàlla ak diine moo sax fa Mustapha sëriñ Mustapha shamsul huda fi zamanihi wala adnal afaaqu min noori Mustapha kilee tabe am xam-xam te am diine fonk ngor ragal yàlla tey jàmbaar judul daw fa Mustapha kilee tabe am xam-xam te am diine fonk ngor ragal yàlla tey jàmbaar judul daw fa Mustapha kilee hammidaay fi saahirin baada baatinin hinaayatuhu qablal wilaayati Mustapha kilay mbàkke waa kokkeeg lugaag ndaam di kër ndeyam ña doon kaañi kànkaag mbaa fa Mustapha kulu washrabo dex gaa ngi sa ngat te dootu daay sëriñ bee di baharul joodi nuur leen ci mustapha kulo wasrabo dex gaa ngi sa ngat te dootu daay sëriñ bee di baharul joodi nuur leen ci mustapha ولا يستوي البحران عصب شرابه وملح أجاج بالخياط نبت مصطفى ولا يستوي الأهما كلام إلهنا فأنت بشير يا سرين أمدي مصطفى ولا يستوي الأحمى كلام إلى هنا فأنت بشير يا سرين أمدي مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما الحمد لله السلام دغم بروم دار سلام جبرنا مصطفى كلام على بناء الجامع الحمد لله السلام دقم برم دار سلام جبرنا مصطفى كلام على بناء الجامع شيخ بامبا بينا مو نيونم وكل حرب وهجم جي جف دنجين جي سفانيم يوم لقاء جوامه جي جف دجل كوي مريد bi jaahi qaadirin muriid rusloo na képp kuy mariid waxu wayru taayi seytaane matt na loxoom radda lahu kaydal xadiim buur yàlla teppi nay pexeem taban lahu min xaadimi mboolem ku daa wax lu warul fal yattaqillaaha xasal man maa ngi tuub def luy waral Seex Bamba saafii mboolem ku daa wax lu warul falyataqillaha asal man maa ngi tuub def luy waral Cheikh Bamba khairu shafi'i mamuna santal sa borom sabaqta sabqan la yarim billahi raw nga say morom ma saxiiri tabihi don nga si idianta njaay wal sirran wa wilay carrière ba ya ngay taamandaay shamsu duha fil jaamici al yaa nga dajaloo xaalalilahi takalu di sa fi weer yu tegaloo min fawqi nañ min taalihi mboolem muriidi di dajaloo li hubbi man xat wasalu angaari doj ya tegaloo lil fin li fil mu daarihi mboolem murid yi dajaloo li hubbi man xat wasaloo angaari doj ya tegaloo lil fin li fil mu daarihi yoolub ña doon xare badar lil xaamiliina fil xajar ñaq ak deret fa kay defar siyaani inda shaafi'i yeneen da daa fital jiheer maha sihaadi fil kufaar bakkan mooy jiheer akbaru min madaafi jumaa ji wuutu na li kulli man lahu yusaar cey ku gisoon Seex Ibra Saar asdaqu kulli xaari jumaa ji mooy mujj ndigal biis ni sayxinaa xasal ku ci jëful awoo ndigal si waa xaruurin xaadiri ku bëgg ndam na ñëw liggéeyi fii xidmati cheikhil baki taalab sëriñ tuuba du géeyi nooran li kulli xaasihi bu kenn soppi ak bayin yawmal xisaadi sa yabin bambaa ngi xool te dinu seen yasi li kulli zaarici murit bu naa suma yëgoon xaadimahu kulla zaman nee ko la seex bamba amoon lil mustafa fil jaami mboolem murit yi sant leen lillaahi fii kun fa yakun te xam ni faw jiitu ngeen fama lakum min daafi Cheikh Moustapha sant na leen sukran yulaasimul yaqiin defal na leen gërëm na leen rëdan bi xalbin xaanii ma wax fi lëf ci Moustapha xutbu samaani xat wafa amul moroom du fii du faa faaxa jamiul jaami nan sant yàlla Moustapha raisi ahlil istifa تسمت أمد المصطفى على بناء الجامع يلا كجيت الجخديم وشيخ أحمد الخديم جيتنا آدم كدوم قبل سوي التناسه من يصلى في الغصاي فمن أبى إلى سواي طبت موم جخوي هداي ويل لكل خاته بامبا كود خليفتهم نور الولاية يدوم بلين كجيما دف مروم xat faaqa kulla baari tabee ko tee jawaab yu jiibu misla jaab boo yox mu di la wa huwa xayru jaasi mus sa ndëm lu aji laaj yaqdi ku haaj waaju ko ŋañ nit di ko ŋaañ ka sukkarin li baalixi moo di amirul muuminiin sultaanu xutbul muslimiin nan sant ngir mi dootu neen yaquudu kulla taayixi deefu ko laaj mu di la waat yëfil ataaya wa sawaab day may wolof di may tubaab wa kullu barren xaadini jumaa ji baayam digle woon fii haam hamsa sin la woon moo ci taxaw gar ci bakkan tuubaa li kulli taabi mboolee mu seex ak i muriid fal nan wi kullamaa nuriid bu amuloon nu def mariid famaa lanaa min shaafi jubleen nu wuy ji mustafaa faman ajaaba xat tafaa ku sopp daam sopp tafaa maa lahuma min naati ku denc ay junni yu rong lawlaa abuuhu maa malak ngir baay ba moo deman gabon fa maa lahu min shaayi taxawu leen ko yéeni seex li wa raasi di siyoox nunu murit nu naa ko foox hadiyatan lil jaami nanuy sujjóot di foon diraam laa taqnatoo min al maraam jox leen ko ay pasaki ba am falmaalu xayru jaami jumaa ji mooy baytil xaraam fil garbi maa fihi xaraam ku ci demul torax fa shaam wal xabri fil madaaji tax na jumaa yi mel ni waañ fii buqumatin wa fii fijaaj semmal na waalu gaa ci njaañ lil ahli wassaraa'ini moo di siraatal mustaqiim bihi salaatana nuqiim bis bu matee ñépp ni xiim atta madaafi waa ci sànni ab dërëm aw nisbihi walaw balam buy faatu àjjanay këram insha xayru raafi maam Ceerno def na ciy junneem li hubbi jannatin naim sexanta yónni ay donoom wa man aba min noonihi jëwriñi saadix ba fa saam wa huwa saahibul maqaam dee ko jot yawmal xiyaam ahmadu ndumbel baarihi jébbal na mbay ma Mustapha walam yubal bi man jafa moo sopp bàyyi ma nabi shaafi ku dikkagul dafay nelaw faraataloo moohu bilaw waxtu yeewoo dana ñëw maa sawi tataabuhi lii doy na képp kuy muriid li wajhi rabbi yuriid ku mu sëful mariid wa huwa xayru raakihi man sant naa ña doon liggéey li wajhi sayxinaa al mbakii tàgg ki tax dee fi liggéey wax wa xutbu taabixi moosaa amul doole ju jëf walaysa min ahli sharaf mota tax mu naa leen jërëjëf laalahu min shaabici ala nabi xayril anam xayri salaatin wa salaam ndegam borom daaru salaam ala binaayil jaami ala nabi xayril anam xayri salaatin wa salaam ndegam borom daaru salaam ala bismillahi irrahmani irrahimi wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman faaxelun mafaaxalatun man daxaama laa bëgg laa bëgg way romb naa falam bu ca dégg ñuy tëbal ak way seeni mbër yu ndaw ña mbër mu ndaw àllaw le nga way ma dal di way sun mbeur sen waxin wala bëgg roy ahmadul ya yu kat pas-pasam bala amee tey diglu leen ma bak fi mbeur mbeur mu yalla fal du ko jay donu bamba doy na di mbër toogelal ba weesu na cey waris tamar tabatan ya qusay mbeur mu na dal mustafa di minudoi, mi mu doy delu len ca làng gawaay len te tay bërgu baatinoo ngi fi nun lambi diine jaa ngi fi tey géew bi yaa na daama ko ub dem na taaw bi dar na ko tey baarikal la mbër du lenoo tekki leen ko seeni tubay taaw bu taaru taawu mbiram bay ba mbakke am nga lu rëy xat hawayta maharifatan yaa xadiimu najlulu ay baarikal la yal na la ji yal na fan wi gudd di wéy yaay doonay sëriñ bala jur wàlli yan du yóbbu sa way yàgg ngée na lal li laloo càllal ak samaam ma fa ngay yow kaman kaman kamu man mbër yu mag yi yële wey yow kaman kaman kamu man daan nga mbër yu mag yi yële wu nga lan di jëkkër samba yan dangaa na ngi tey xadro pinta man fi latan fii xuloo bi naa kaw bay bëri yépp tuum nañu far doomi bamba donn na ñay doomi ñay dafay bari laf doomi gaynde day bari ay ak ñaloor ndaama du ko yab bay du suuru mbaaraki boy yaaram ak sagan duñu yam njaw du mel ni lem gu ñu fay yow sa ay gi neex na fi nun yal na ñam yi sotti te doy yow yërëm nga ndaw wegu mag waa ju ñëw nga dal ko may is xaday taxaajatana mustapha xamiinu su yërmande la tee mën a dem yow la bamba def sunu ndey ngir njaboot gi yow la xam ndey ci seex nga yaa mën a sëy baayolan jirim la nu wan yaanu nam ba nu rëy waaye noonu ngay mën a mel yàggtiw bañay juru bay yow sa baaye sut sunu yoy ak sa wat du ki guy doo kemam ñi lay defi kem yàggtiw ba bay juru ñay ahmadam ni aminatin sibtu balla xaburu ba ngay أحمد بن أحمد من جده سليل ولي seytadi te gën sunu yoy yow sa yaaya gën sunu ndey gi sey dañuy bari ngor gàttu lammiñ te gën a way yooyu tax na dam ja nga far adduna ak alaaxira tey tiitarub farañse bi ak baatinub sëriñ bi nga moy mustapha damul li nga am bamba rek ka am lu ni day yow tubaab bi jox na la mbég bamba dañ ko daa defu ay am nga man tu am nga galan jox la ay médaille di la way kuñ kalaame bay bëgg tëj sootinoo mu ñëw te du lay kuñ tëjit nga tij ji mu ñëw yow samay di weesu na cey mustafa kamal nga di waay buuru misra ngay bëgg roy mulku misra mulku ko am xat warista mulka sulay sun saxaar gi yaa ko dawal penku penku léegi ñu xay yow sa yan bi diis na fi nun lay bëgg rey kun tawati yaa ko fi faj bor bu rëy nga dal ko fay yow tabee la tee mën a am bay timaal bu réew mi di xëy kon nga boole ay million waaye doo ku bëgg te nay tab donoy tabeeg mën a muñ doomi xaw su day rëy may ak wilaaya yan la bu rëy xut bu xol ba day rëy rëy xat waris ta tarbiyatan fi tariixi mis lu uway bamba mbër ma sax na la dem tol bi yaa na jéema la bay yal na doole ji gën a rëy jaw jumaa ji doy na la mbay moslukat yi nañ la ëppal soxla yaa ngi lay bëgg a rey waaye tas yi la ragal kal yàlla taal du ko fay loonu laaj danan la ko jox donga yépp yépp a ngi bay bul nu ñéeb lu deenu diggal donga yaa ngi lay bëgg a yey yow sa mbóota tax ba nu am deenu sas sa baayanu may bamba moonu tër bi yawoon tër xiyaal te tas fiya tey yow sa mbuuta tax ba nu am deenu sas sa baaya nu may bamba moonu tërëbiya woon tarxiyaal te tas fiya tey jàkka di mujj ndigal tey ndigal amul lu ni day war na noo saxal lu ca jëm addi yaa ngi doon bëgge wéy war na noo yabal ñu ca dem yéen a tax ba tërbiya ay noppi naa ko xam li ma xam xam ni kuy géwél dana way bàkk waa ngi maa la ko way njàmme ka di suqi ci way mbër mu fii tëbantu fi nun nan ko jaggiruut ba mu say bakk waa ngi maa la ko way njàmme ka du suq ci way mbër mu fii tëbantu fi nun nan ko jaggiruut ba mu say xulli man yu baarisu naa laysa lil mu baarisu shay ngën ji ñaari sëlmari buur bi nabi fi hiraali بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات ونية التبرك بذلآت الحمد لله القديم الباقي في الأرضين صفه واتباقي الحمد لله القديم الباقي في الأرضين صفه واتباقي وهو حي لا يموت أبدا وهو رحيم لعبيده غدا وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الهمام وبعد موسى نجمد المرسيال شيخ مصطفى المبكي سيد الرجال ينو مريد njàmmee ngi يوخو دي جوي خليفة بعيدنا يصديقو yéenu murit njàmmee ngi dee ti yuuxu di jooy xalifa bay donay siddiiqu moo di xalifatu xalifati rasuul see ahmadul mbakki saahibul wusool bu dul ko nag muhammadul makkiyu ma jëkka dem woo ahmadul mbakkiyu ak xulafaawu yafi toppoon mustapha kon tey nu jooyoo jooy li amdil mustapha waaye la yóbbu mustapha al makkiyu دبي توبا مصطفى البكي وكل ما قدره لله لمؤمن أفضل من سواه دنيا سدون كرو سفوديال خير الورى ومكة دنكو جال سيالا دون تاغو تروه المصطفى no كتيرو مليون ci خلفاء دقل بو xulafa شو بريم ليفاتي لو خج خج دي نكاين واتي wa kullu nafsin makkata ki mbàkke saaiqatul mawti bi gayri shakki xuqal bukaaw joyre leen ma mustafa xutbu samaani seey ba dem na ba mu fa teewoon mu àggale jumaa yi tuuba te nun mu faatu ndax mu jot ko booba jumaa ja jooy na ba fer batam ba su ko sañoon du fekki ren ba jinne bi Dengo nañu dengo ba soy bi xalbi so suufa ngi joy garab ya joy nañ am bi ngira sama ya yuuxu nañ ca jam di jant ba niis na wero feñ ca takusan yow ma wafaatihi di joy xuddu zaman, jigéen ña dengoo góor di daanu ñele di fay ba dem ca teen yey daanu ñe tabbi fardi di dem ba faatu ñe maw lekkatuñ li lay ayatu neexam keroog nu faatu ànd ak Mustapha bu xaru jaar du murit ya faatu fa ak yàlla yi taaw bu taaru dem na waaju ñu belli sibtu balla wéy na ak kii alayhi tey ma jooy Cheikh Amdi jooy yu ma mus la jooy xubay la Amdi ak kii alayhi tey ba nax na tuuba ñibbi naa jana ca baayam booba ak kii alayhi addinaa kamaay juuy ñëw leen nu dengoo abadan te naa wóoy attiyaara yi fulku mashoon jooy na kaamil ya far nañ leen miraas lii siiw na attiyaara yi kër gu màgg a jooy na ngir adduna nga koy xaccoo lii booy na attiyaara yi góor gu way ga dem na wayu yamel ni man di jooy mbiram na attiyaara yi tabbu rëy ba dem na kenn dootu fay bor yi te réew mi xam na ak ki alayhi kuy sarax miskin yi tey toppatoo bàyyi ak jirim yi asi alayhi kuy dundal daif yi di woddu way rafle ak xaaram yi asi alayhi kuy dundal daif yi di woddu way rafle ak xaaram yi asi kuy defar waa Tuuba tey toppatoo Jurbel te def ma booba asi alayhi waaju xër ja daana mayey wataa taax ndar xam na asi alayhi espares ba dem na bagaas ya tardé nañu paas ya rot na ak ci alayhi sun ga dem na rab yaa ngi xiiru ante way ay am na jàmbaar ja dem na waaju xam ja yàlla te bari jom te bari ngor xam yàlla caq ba dog na ren ci weeru soxbaan diggal ba réer na tari sew ya saawaan fi yow mi jumhatin la réer fa tuuba di ñetti fan seexam bi mooy tëmbil ba te mbeel ba réeroon ca cosaan ko jeex moo ca desan per yuñ goreel ya lee ñu jeex aahin fa aahin summa aahin aahi woy ma ne wuy man jooyle leen ma haahi aahin xalaa faqdil xaliifi hamdi Seex Mustafaal Mbakki yu maa tarde aahin xalaa faqdi himaadi tuuba kenn lu roy la buur na cay booba aahin xalaa faqdi siraajillaahi لامب بو لير دون الله اهين هلا شمس الورى لله جنت با لير لان الله اهين هلا باب الهدى لله في ملكه وملكوت الله اهين هلا خرم رجال الله موتن ترى يو خلفاء الله اهين هلا قطب الورى الجاه خليفة القديم دون الله هو حبيبي وحبيب الله ويبقى لله عند الله lamb ja tas na mbër ma dem jinaani suur bëre yaa ngay bàkku fi samaani ku mën na yeesal diine doon waaja tarxiya mbooloo mi tabax jumaaja diwlul ma wax la yow atam juddoom ba saay noppu xaama wasa sin taarix ba daaru salaami yow ma haasooraa moo doon ganam ga booba laamiraa fekkoon na bayam génal istixaari ngir bëgg a ñëw Tuuba mahal abraari bis bam nga ne addina gis na booba leer ak rasuulullaahi sarba Tuuba maam Cerno yónni xonandooy ca yoor yoor moo ko yëgal Seex Bamba kooka mooy góor Bamba